كسهرين أنت سبيل بك الوصول لمن ينيل خير سري أسبت هري أسبت خيي كملت راهي كالكبري خير الأنام فيك خلامي بلا ملامي بل برضاي يا ذا الجميلة يا ذا الفضيلة أنت الوسيلة لسي الخضاي فيك سكوني إلى المتين بلا فتوني wala nxidaay xayral hibaadi baabal ayaadi nuural bilaadi asna rajaay asabta xammi maawte sulmi lii jut bi xilmi daahi najaay asabta faaqri lii sunta sirri min xayri makri wala hijaayi sakayta nafsi fakakta absi asabta labsi sutta xitaayi sunta jihaati sitta hibaati abxayta saati مع الحطاي لك رجوهي مع جموهي بخير جوهي ولا خطاي لك التفاتي يا ذا الصلات بعد صلاتي مع السناي عنك رديت بك نسيت كما خنيت عن الحناء لك امتداهي يا ذا السلاه يا ذا الفلاه يا ذا الخناء فيك أنادي كل البلاد لسي العباد بان الخماي فيك مهوت ما خد جنيت فيك ابتخيت خير نماي فيك سهابي فيك إيابي بالاحتراب لك انتماي سهسة أبي هت جنابي بلا كآبي ولا هباي يا خير ماهي مع جناهي مع المساهي وقت السباي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا حيوبي ولا سباي يا خير واهي يا خير راهي يا خير داهي لسي السماء صلى عليك بمن لديك مسن عليك عند الرماي عليك سلم دابا وكرم من بك عاسم أهل اهتمائي بك أقود بك أفيد يا من يسود سوي استفاي سوي الهقالي نهج الرسول maay il xufooli maay il xafaay zowi sakaayi lisil baxaayi maay il xataayi maay il jafaayi saakal mutaahu zaaka sujaahu bihi yuraahu sawli baayi ذاك الولي ساك النجي ساك السفي سول التباين ساك الحسيب ساك النسيب ساك العجيب بعد الحباء وهو النفيس فلا تقيسوا وهو الرئيس للأنبياء شمس الشماس رأس رؤاسي خير الأنيس للأولياء صفة الصدور ضياء الدور بدر البدور بعد الدياء حيث سكوري ليس كفوري نافي نفوري مبدي خلائي جنات هادي نيران هادي فالفضل بادي للهقلاء معي الخطايا بار الهطايا هادي البرايا بلا خلاء له البراء له صفاح له جماح حاوي ارتقاء إن رام هلما أو رام خنما أو رام سلما باخ اللقاء فساك يهدى وساك يهدى له ويردى ساب سقاي هادي مجير نور منير خيس بسير لسي اهتداي آمن نسير daahin basiiru laysu nasiiru li siati daayin muskin li saakin bisrun li baakin muskin li haakin wasiini daayin mungin li saalik man jan li naasik jaali hawaalik عن صدقاي خن فقيري جبر كثيري سيدها خيري باخي بقاي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البقاي له الخطاب له الجواب له الثواب مع الرداء له البرار له السرار تلقى أوهار بعد الخضايا له ختابي بعد متابي من كل آبي مع المضايق لك خوارق من سي الخلائق ليست لسابق ولا لجاي منها انصراف شيء يهاف هم يخاف بعد التجاي خير البرايا ست البلايا لسي الخطايا رمت النجاي أنت الكريم أنا الخديم دهر نديم فيك سنائي أنت الكريم أنا الخديم دهر نديم في كسناء رمت امتداها يهتي فلاها يكفي اهتداها مع الحناء إني بماده عين تريبي قطعا ونوجي مع البناء لكن هجست هم التمست وما مدهت كنبلاي خار مدادي عرف وادي هن مدهي هادي للبدلاي فكيف أهوي madal li mooyi wal madu mooyi lil huqalaayi laakin unaadi kulla libaadi ilaahi maadi bila jalaayi yaa ahla barri yaa ahla bahri hujooli bari bari saxaay maay huyoobi mu dii huyoobi mun xiiju yoobi min attaxaay musdi ayaadi murdi ahaadi muhti muraadi مهرخي معي رسائل في الفضائل مهي المنازل بعد العفاي نم الحبيب نم القريب نم اللبيب معي الخفاي xamal hiyaala kafal xitaala maxal majaala bilaa rifaay axfa suruura abdal xuyoora xaada suroora misir rajaay safa saqiima نفى الأليم خاد الخليم إلى النجاي قد فك كابلا قد بس فاضلا فالضر ولا والنفع جاي قد فك كابلا قد بس فاضلا فالضر والله والنفه جاي جال النوائب مبديها جائب نافي مصائب باد اللهاي مسدي الخيور إلى القصور باد النسور mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu di ziar mboolem téléspectateur MKTV di chaîne bi nga xam ne moo nekk ci grande mosquée de Touba. ñu gënoon koo min ci weneenu tur GMT TV te tey mu judd judd gu bees tudd Muxaddamatul Xidma TV MKTV di chaîne éducative et culturelle. boo xam ne lépp lu aju ci wàllu jàngale ak wàllu tàggat ak wàllu aaday yoonu murit ci lay wax nekk fii ci jumaay Touba ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ci bis bu mag bi ñu nekk ak ci barab bu tedd bi ñu nekk muy fukki fan ci weeru Zul Hijja muy weeru tabaski atum 1442 hijriya dëppoo itam ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet atum 2021 fii ci barab bu tedd bi di Touba ci jullukaay iid bii nga xam ne moo nekk ci penku jumaa ji waxtu wi ñu toll nag juróom-ñeenti waxtu tegal na fukki minute sëriñ bi joxe woon digal ne jullik tabaski gi ñi ngi ko war a taxawal ci juróom-ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri minute kon mu mel ne suñu diggante ak waxtu wi ñu war a taxawal ñaar fukki minute rek moo fi dox nag du jullik iit jullik tabaski ki nga xam ne moo ko war a diriger moo war a jiite julli gi mooy Serigne Fallou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir ci teewaayu alxalifatul am li tarixatul muridiya Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir yàlla na ko fi suñu borom yàggal loolu te may ko wér ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi waaye ci teewaayu itam kilifa yu baree baree bari yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi bokk na ci Serigne abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne mooy xalifa xalifab Cheikh Mouhamadul Fadal ak sëriñ basiru mbakke Abdoul Khadir mi nga xamante ni moo yor kàddug sëriñ bi kàddug yoonu murit ak teewaayu kilifa yu baree baree bare MKTV nag di télévision bu mag boobu nga xam ne moo juddu juddu gu bees te ne féete fii ci jumaay Touba muy Muxaddamatul Xidma TV ñuy ñaan mbokk yëpp ñu bàyyi ko xel te xam ne li nga xam ne moom la GMT daan transmettre ci rythme boobu rek lay dox waaye nag am jógin wu bees woo xamante ni di ngeen gis ay émissions yu bees ay concepts yu bees yoo xamante ni lépp mi ngi jëm ci jàngale ak yare ci yoonu murit ak njàngaleen Serigne Touba incha allah kon bu ñu def lu dul bàyyi leen rek ngeen dund euh, mise en place bi direct bi ak dugg kilifa yi euh, ak waajtaay wi nga xam ne. commission d'organisation bu nekk ci daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi koy waajal ci barabu jullikaay it bi ci wàllu sécurité ci wàllu xàjjale góor ñeeg jigéen ñi waaye ci lépp loo xam ne aju na ci organisation ñu bàyyi leen ngeen dundandoo ko ba ci kanam tuuti incha allah danañu dellusi ñu ànd ak sëriñ Mouhamadou si Serigne Modou si ak euh, doomam jooju nga xam ne ñooy féetewoo njàng mi incha allahu taala kon MKTV dina ànd ak yéen dund julli ayit fii ci jumaay Touba fii ci jullikaay it bi nekk ci jumaay Touba muy jullik tabaski atum 2021 dëppoo ak 1442 hijra kon ba ci kanam incha allah wa yuxtini al muna bihi tantafi dahran li xayri xawaati alimun xakimun xaad xamaani bi xikmatin wa yakfi janaabi shar ramaahu wa waaqiu salaatan wa tasliim أبتخي لمن كان بالطاعة عبدا يسارع محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب بنعم المطاوع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس si arju saadatan wa an yaqbala al a'ma la wallahu rafi'un najati wa inja'i wa awzi istiqamatan uhawiluha billah هو القلب خانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل لو القلب قاسع لو سرت بالقرآن ni abdan xadima man lahu xidmati shawxan lahu wa huwa shaafi'un nabiyul huda bahrun nada daygamul ida manil juudu yanfil faa روى السيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماهي مع الرسل والملا من الواحد الخهار لمن هو مانع سلام على الماهي مع الرسل والملا من الواحد الخهار liman huwa maaniu bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman tuhfatul awwaa fi taxmiisi astaghfirullah bismillahi arrahmani irrahimi sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa azama ajran wa astaxfirullaha inna allaha gafurun rahim walaw annahum id zalamuu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llaha wa staxfara lahum rasula la wajadu llaha tawaaban rahima afalaa yatuubuuna ila allahi wa yastaxfiruunahu wallahu gafurun rahim wa man yacmal suu'an aw yazlim nafsahu summa yastaxfir illaha yajid illaha gafuran raximan wastaxfiruu rabbakum summa tuubuu ilayhi inna rabbi raximun waduud wa yaa qawmi istaxfiruu rabbakum summa tuubuu ilayhi yursili samaa aleykum midraaran wa yazidkum quwwatan ilaa quwwatikum wa laa tatawallaw mujrimiin fasabbix bihamdi rabbika wastaxfirhu innahu kaana tawwaaba labbayka rabbi wa sacdayka walxayru kulluhu biyadayk abduka daifu bayna yadayk muxiran ala nafsihi bizambi wazalali ragiban fi gufranik wa taxabulika lahu fi lamali qailan imtisaalan li amrik alhamdulillahi zil gufraani walkarami summa salaamaani aad dal xalqi kullihimi alhamdulillahi zil gufraani wal karami summa salaamaani xaad dal xalqi kullihimi ala allazi saada fil arbaa'i wal ajami muhammadil xayri xal xillaahi albihimi muhammadin xayri xal xillaahi albihimi man nartaji awnahu في الهول والنخم وبعد فالقلب من اليوم ذو ألمي min kasrati zanbi wal afaati wal xumami fa xultu za tawbatin lillahi min nadami astaxfirullaha mujril fulki fi zulami bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala muhammadin wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa rahmatullahi wa barakatuhu fi nasmina masalik aljinan fi xidmati almutahiri aljanan ayasil abiyatu man sanna man sanna xayra xadimi almustafa man sannani xayra xadimi almustafa fa innani axdimuhu bima stafa man sannani xayra xadimi almustafa fa innani axdimuhu bi mastafa axdimuhu ila duxuli aljanna daari alxaraari walmuna walminna axdimuhu ila duxuli aljanna daari alxaraari walmuna walminna man sanna annahu yakunu abada yurdihi billasi ka xidmati bada fa xarrahu dalaalu wal idlaalu yanxaadu lii minhu bihi alxalaalu madahtuhu xablu la daali barwali madahtu xablu la daali barwali madahan wanaan misli kullu wali madahtuhu madahan la daa maa yumba maa huwa bi wakafa sanba madahtuhu hinda unaasi galwa madan kafaani yalhida walbalwa minni ilay xidmatun xalaasamat rawdatuhu ilal xiyaami wasimat radiya anni sibtul jaylaani alayhi ridwaanu lazi ahlaani radiya anni sibtul jaylaani alayhi ridwaanu lazi ahlaani radiya anni sibtu abul hasan alayhi ridwaanu yuxaalidul hasan radiya anni sibtu tijaani alayhi ridwaanu mubidil jaani radiya anni alxulafaa al arbaa واستر رضا المقربين المتبع من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل وحد النجساء صلاة من كرمه يلقاني هل الذي دون المراء الخاني صلاة من كرمه يلقاني alal sayyidul miral xaani subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin bismillaahi rahmaani rahiim muhammadun rasuulullaah man sakka fii kawni ibni abdillaahi muhammadin nuuri wal afalaahi man sakka fii kawni ibni abdillaahi muhammadin nuuri wal afalaahi haasa rasuulullaahi maa lam yahlami ilaa llazii xaatabahu bi kalimi محمد فرد يفوق تسنية وفاق جمها والهدايا مغنية من سن أن المنتقى مثل الورى فهو خمر قلبه ما نورا من سن أن المنتقى مثل الورى فهو خمر قلبه ما نورا درجة المختار بالمرسل بيهد الله درجات الرسل درجة المختار بالمرسل بيهد الله درجات الرسل rasuluna ahmadu lam yudaaha xatu waadu kaana laa yudaaha sayiduna alxayidu lil jannati jafa biha xalamu silminaati sayiduna alxayidu lil jannati jafa biha xalamu silminaati wala lahiinu wa nafaahu llahu li xayrihi wa faasa man walaahu wala lahiinu wa nafaahu llahu لخيره وفاز من والاه لم يخف كونه رئيس رؤساء وابدا ابليس منه يئسا احساه سلارس العصيم ابدا منصرفا منذ ابى ان يحبدا احساه سلارس العصيم ابدا منصرفا منذ ابى ان يحبدا لم ينونه المصطفى والله ترده لخير من والاه laa yantahi almadinata almunawara suun xamaaha soo baqaayin sawara akarama rabbul arsi salmadina ila jinaanihi wa saana diina akarama rabbul arsi salmadina ila jinaanihi wa saana diina hadama ma banaaw kullullahi man jahala almuxtaara abdallahi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama baayatu xayral wara bi lawhi wal xalami li wati rabbil wara si lawhi wal xalami baayatu xayral wara bi lawhi wal xalami li wati rabbil wara si lawhi wal xalami sahatu fi xidmatil maahi muhaayanatan tufni hani sakki fi rabbi wa an sulami rafaxtu fi xidmati tawfiqa xaaliqina almulhimi maayil jahli wal alami رافقت في خدمتي توفيق خالقنا الملهم الخير ماهي الجهل والألم فاس خلامي وفاس القلب مهبدني في الله وسيري والمختار في خدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والحمد فردا جل عن هدمي ساخ الكريم ساخ المكاره والأقدار جملتها لخير نهوي باخ جل سوء خدمي taraa xasaayida tawxiidi munamaxatan بفلكنا الواسي المسؤول بالنعم بسرت خير الورى نفسي رسي مقات صلى عليه مجيبا خال للنعم سهات في خدمة المختار ويب من ليكسف الدهر ما سروايا هنو هميم ربيت في خدمتي ربا يري عجبا من فيد هود من فيد هاد يريني كل منبهم واجهت من قال فيه سائد فتن ولا نبي على خيب بمتهم إن الرسول لسيف يستدعى به من ربه هذا علم الله والقلم إن الرسول لسيف يستدعى به من ربه هذا علم الله والقلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم سلمنا هل اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم سلمنا هل اشتغالي بفروض وسنن sakartuhu li annahu qad saaxanii li watanin bihi nafa maaxanii waxaadanii ilayhi bittahalli min bahdi ma hasaba bittahalli wa jarranii fiihi ilal huloomi wal fawsi bil amali bil maxluumi summa salaatu bi salaamin tabiha halal la si qasdiya an attabiha halal la si man bi muraadi ixtadaa في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير ورس فيه وآلي وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أحاب wa innani ya barru ya karimu daahin wa an suurika la arimu mundu jasabtani ilayka ya muhin hinaayatan minka ilayya lituhin fa qumtu mashsuuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka mufawwidan musalliman ilayka amri muhaajiran lima ladayka summa ilayka la ilaha siwaaka قد سرت لما لم أجد سرواك فجدت لي اليوم بخير منني وخدتني إلى احتفاء سنني من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في سلك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أسهل في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استخال بهدى المعلوم فقلت ساسور وساء توسلي بالمصطفى السفي عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسوى في سريها نجمها يا بر يا غفور يا عليم إني غفور تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمد هواي خليلا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيد كثرة الآفات وأندس الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم يوم أن أكون ممن أبوع لخيرك الركونا وأن أتيهك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من استفاد يا حافر الذنوب يا قريب إني هبيد ها هنا قريب لهب ساك ولإخواني جميع سهادة الدارين حقا يا سميع هب لي فيها سدها الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الخصم في المقاسم ولسوي الدين بجاه الخاسم ولكسفا ليل الهوى البهيمة bi hurmatil mahbuubi ibrahima wali yasuq xayra xalaalin tayibi wa xayra jiiraanin bi aqi tayibi wa saffinii fi baatinin wa saayiri wal ambiya alxalqi bi aqi taayiri wa laqinii tarxiyatan xafiya bi binti ruqiyata safiya waqi asaaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kaafiran bi saynaba ومني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى الخيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي خد بجاه فاتمة صل على أبيهم والآله وسهبه وليستجب سؤالي وكن أنيسي وهمني من الضرر ونجني من اخترار وخرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي خد من الأكدار wa najjini wal muslimiina min balaa wal daqi jismaaniya fi xabril bilaa yaa rabbanaa yaa rabbanaa yaa rabbanaa yaa rabbanaa yaa rabbanaa yaa hibbanaa habli bi jaahi man huwa almuxtaaru dunya uxra xayra maa axtaaru wajal hijaaban baynanaa wa bayna kulli asan wa tafi xannal xaynaa yallaahu yaa nasiiru yaa jaliilu إني حقير مهدم سليل فلتغنني بك وهب لي الأرب بمن هلا جملة هجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاة وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولياب خير منن وأملي يا من هلا عن المكان والهرد إني ساكن هنا وبي مرد وكن أنيسي وسني من سقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا هدل يا مسل يا من يؤمن أنت مديري هنا يا مؤمن فأبدا كل مؤمن يا ذا الجلال من كل سوء وحساب وضلال يا من هلا عن زوجة وعن ولد كني ود جميع أهل البلد وجل إلهي مسكني كبابت مثل اسمها بجاه خير من هبت وسلي عليه أفضل صلاة وآله وصحبه سوي الصلاة وكل من خدمني أو سارا فنجيه واغفر له أو سارا وكل من أهبني أو بلالا وكل من أهبني أو مالا إليه فارزقه هدى أو مالا وكل من ستمني أو لاما فابله التوبة والاستسلاما وكل من أساس النوبيا فليخلف قلبه يا ربيا ولتكفني أسى جميع العالمين ولتكفيهم أسى يا ربي أمين وجل بناي بناء عافية يجرني إلى خيور سافية وجل بناي بناء هلمي وعمل بسنة وهلم وجل بناي بناء الاهتداء وتكفي عني كيد كل اهتداء وتفني الدهر أسى سيطاني ويسبي الباغين في الأوطان وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريع النس يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا عيس عن ولتدخل المسلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي وفي وأهلني وأهل من يهينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن هل الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن هل الأهل بماء جاري واجعل رب مننا محجلة جالبة لمنن مؤجلة يا أيها يا خيوم كل مجيب anta almujibu walkarim walxarib ilayka wahdaka farartu min siwaak ukun bisaaka qaayidi ila hudaak وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه النكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم ونجنا من سر هذا الزمن وسر خيره وكل فتنه والتقنا سر النصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسوداني في السرخ والمغرب والبيداني وسر ما في الأرض ترا والسماء من ساهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا خذ لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد درا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائس اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه هل ليس لي أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات wahab lana ahsan lasi aataana wa tarka ma an fiilihi nahaana ata allahu akbar allahu akbar allahu akbar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 والذي أخرج المرعى فجعله عثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى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 والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلها من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها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 وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى الله وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأسى قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام معطي السول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان bi an laa tufaariqu maxtiira lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajurru lakum alaman wa kabada wa anhaakum an fili kulli ma lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimma yuwajjihu ila gayrikum alajra walrida walthawaaba wala tatlubu alkarama bigayri altaqwa fa inna alkarama huwa altaqwa ولا تطلب العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كل ما يرتقي إليه من الجميل يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا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 وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاعمدوا الله تبارك وتعالى على ما جار به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق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 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم mbokki gannaaw bi wutoo kilifa gi ci jiite julli gi ak jàng xutbab arab bi nu ci baaxoo teg te def ko ci ndigalam ndax moom mooy al imaamul xaqiqi ñun weesuwuñ day taalibe kàddu gi mu teg ci lim ciy teg ba tey ci ndigalam nu wutu ko ci fàttali mbokki jullit yi ñi fi teew ak ku ko dégg ku ne rek lu aju ci bisu tey bii ak bis yu màgg yi nu toll ngir ku ko yàlla fekkelooti mu bañ leen a sàggane bu leen muste sàggane it mu yokk jëfam kem kàttanam fan yi nu toll di fani fukk yu jëkk ci tabaski te tey mujj ci yal nañ ko yàgga teewe te di ci jaamu yàlla fan la yoo xam ne ni yàlla bëggee ñun jaamu yi nu ko ci jaamu moo raw ni mu ko bëggee ci yeneen fan yu mën doon ak doonte ne ci fan yépp la ko bëgg amul yenn fan yu bëgg ko ko ciy moy ni ko ñépp xam ñu man cee gise ne loolu mooy ku ne ci nun lim daa def ci topp ndigalam ak moytu tereem ak nu mën di toll bu fan yi dikkee daa war a jéem mu yokk bi bisu tey bii nag mujj ci te ko ci lool gën ci bisi at mi yépp kenn mënu cee def lu ko gënal gannaaw faratee juróom wut ci tabaski moo xam ne sarti tabaski daje na ci tabaski ko am na hadis bu ci wax bu amee ñu ko doyadal it dikk na ci yenn si xaax yi tirmidi yi andi na ko ak ibnu maaja mu di ma amila aadamiyun min amali yowma nahri ahaba ila allahi min ihraqi dam innaha la taati yowma alqiyamati bi quruniha wa ashcaariha wa adlaafiha wa inna dama la yaqacu min allahi bi makanin qabla an yaqaca min al ardi fa tiibu biha nafsa وربما هنالك اختلاف بسيط في اللفظ مثل ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ومثل لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل, بمكان قبل أن يقع على الأرض بدلا مما ذكرت في بداية ونهاية الحديث bii mooy wax ci bisu tabaski bi bii wax ci nga neelu fukki fan yépp nag te ñaar ñi ma tudd andi ko bayhaqi it andi ko mooy ma min ayaamin ahabu ila allahi an yutaabada lahu fiha min ashri dilhijja yaadilu siyaamu kulli yawmin minha bi siyaami sana wa qiyaamu kulli laylati minha bi qiyaami laylati alqadr buxaari moom andi ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل أو إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء mu ne amul yenn fan yoo xam ne yàlla bëgg na ko ci def lu baax lu raw ni mu bëgg ko def lu baax ci fan yi jublu ci fukki fan yi ñu ne ko yonente bi yàlla bi ba ci jihaad sax ci yoonu yàlla jihaad ci yoonu yàlla sax li muy rëy rëy nit mënu ci am lu tone li muy amee ci def lu baax ci fan yi mu da mu ne ba ci jihaad ci yoonu yàlla ba mu des rek benn waaye boo génn jihaad ak bakkanam ak alam ak alalam ak dellusiwa te dellusiwaatul ak dara ci yooyu bakkanam des fa alalam des fa kooku rek mooy ki mën a def lu baax ci fan yi bokkut ak fan yi man ci am lu toll ni def lu baax ci fan yi dana ko ci am kon jullit bu ne war war ñaan yàlla fekke leen at yu bari te saa bu dikkee mu góorlu ci jëf-jëf yu baax góor góorlu it ci moytu safaan bañ leen di jaxase yàlla tere nag di yem cib safaan moom it des koy ful lu aju ci jëmmi tabaski mi nag bu amul ayib ju fees rek rawatina ju bokk ca ñeent ayib ya ca xadiisu albara dal nay doy insha allah ñeent ayib ya ñooy soox pat wopp jeex yii lu ci fees day yàq buñ ci boolee xool bu baax bët yi ak nopp ya ni ko yonent bi diglee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bañ a doon borom nopp bu dagg bay lang ca kanam ga wala fatoloog dox ga wala borom nopp bu xotti ko wala bu bënn mu gën a baaxati bu mënee mucc ci ayib yépp nag ju ak ju feesul mooy muxtaar ma lii lépp nag day fekk ki mi egg ci cig mag fa mu war a egg bu dee xar lu néew néew mu am juróom benn weer am na ñu ne juróom ñetti weer am na ñu ne fukki weer am na ñu ne mu am at bay mu dugg ci ñaareelu at nag mu dugg ci ñetteelu at bu duggee ñeenteel mu gën a mu dugg ci juróomeelu at bu duggee juróom juróom benneel mu gënati a kum jàppandul ci moom tey balaa sawaal fii ba gannaaw suba ca sawaal bu fi jàppandee mu baax waaye nag guddi bokku ci bu sawaal jotee tey li dale foofu ba jant bi so mooy ñaareelu daraja yoor yooru ëllëg ba sawaalam jot topp ci yoor yooru gannaaw ëllëg ba sawaalam jot topp ci ëllëg ci gannaaw sawaal nag kum jàpp ci moom tem gis ne bu ko deful ba jant bi so def ko du ko jàpp ni gannaaw ëllëg ca yoor yoor te mu jàpp ni ko ku xamul moom xam na yàlla xam na kooku mën na koo def balaa jant bi so ëllëg di juróomeelu daraja bi bàyyi ñeenteel bi di yor yor gannaaw ëllëg ngir ngànt ci gàttal li leen tënkoon ci fukki fan yi ak ci bisu tabaski bi di bis bi ci fës yàlla na leen yàlla yàlla leen yàgg a fekke te yàgg cee defal yàlla lu ko neex léegi nu jox kàddu gi al imaamul akbar gannaaw biñ ko wutoo ci lii nu ko wutu وأرجو الله أن يؤيده وينصره ويحفظه ويستره وأن يطيل بقاءه وأن يجود شفاءه والسلام عليكم ورحمة الله ziyaare ñëpp kilifa yi jiitu ji mu ci am solo lépp alhamdulilah rabbil alamin Cheikh Mahamadou Fadil taxawee na ko jàng na xol bi mu ko xamoon itam mu de am ci tabarruk barke xutba bi mën noo jëriñ bi ak biti dolli ci itam kàddu yoo xam ne xam-xam la fa kon dafa mel na jataay bi ay wax desatu ci loolu naa waxtaan na mu amul waxtu kon man lu tegale waxtaan la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 loolu foofu lañ mën a tàmbalee jàng sëriñ bi di ko jéem xam di ko jéem dund jàng sëriñ bi nag il faut nga xam ne soobu mënu ci ñàkk sóobu itam bala moo mën a am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 gën a dëddu àdduna dëddu àdduna ci fi mu fi mu gën a gàtte loolu ci xel lay nekk doo am benn say xalaat danga koy jëme ci yàlla nga gën koo xam sa xol nga gën koo jëme ci yàlla loolu bu amee dëddu àdduna yomb dëddu àdduna amee nag kon suubu gën a yomb lépp nag koy daal di njàng mi yépp nag ko ñuy dañ koy daal di delloo ci sëriñ bi sëriñ bi moom mustatal dara lu digg ma borom وتبدل لبني حيث حيه وسبقا الى بيت الحديث واتوبا حتى يشوف الاعمال وتعلم كل اعمال suñu noor daal la jaay. karawaatu karawaatu soowu imaam bi bii bu. am kaala.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 di góorgóorlu bu baax foofu la jëf tàmbalee nu gën a góorgóorlu bu baax nag te lépp lépp nu gën a gën a gën gën koo delloo gën a ci suñu boroom rek di yéene lu baax tàll tax di wax lu baax te yàlla tax di di jëf lu baax te yàlla tax bàyyi lu bon te yàlla tax loolu foofu la jëf yi tàmbalee lépp lu ñuy jëf nag ci loo xam ne bët mën na jaateegu lépp na yàlla tax na du ko def di jëf góorgóorlu suñu kam kàttan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

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب اكثر لي فرحا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي رب اوصيني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا على خير واصلح لي في ذريتي انك لمن واصلح لي في nee na Cheikh Cheikh Diop sant kenn ku ma yor ñoo fi des. yow kenn ku ma ko liggéeyal. ah nee na ñaar rek. allah tawféex sëñ bi sëñ bi tawféexi boromam rek la am tawféex it moo koy tax am yàlla ñu nañ ñu ko defal yàlla ñu gàtt nañ ñu ko gàttandoo kon kàddu yi.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 di ko jéem xool loolu dana nu dana dolli suñ xam-xam ci moom dana dolli kàtt nit ban gën ko mën a dund kon alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi sant ñëpp mbokki taalibe bi yépp ndax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

ok mbokk yi euh, ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax di leen sant gis ngeen euh, julli gi nga xam ne sëriñ Fallou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khader moo ko jiite bu fukki waxtu di jot waaye itam dégg ngeen xutba bu am solo bi nga xamante ni moom la ci teg ah, ak ndénkaan yu am solo yi nga xamante ni moom la ci teg ci lu aju ci ngëneeli weer wii fukki fan yi nga xamante ni mooy fukki fanu zil xijja ci mboolem yi ci war a def sëriñ Fallou bi mu xu bi mu xut baa ba noppi leeral na ko ginnaaw bi nag la joog doog a jox kaddu sëriñ bi sëriñ bi nag jël kàddu yi ndénkaane euh, dénk ko mboolem taalibe yi mboolem jullit ñi ci ni ñu war a delloo suñu bopp ci suñu boroom ni ñu war a yeesalewaat suñu pas-pas ngir ni ñu war a euh, defewaat suñu jaamu yàlla gis ngeen ko noonu génn na imaam bi Serigne Fall moom Cheikh Abdoul Khadir ma nga ne di euh, ren di xar mi bu ko defee julli mbokki jullit yëpp doo ko mën a dem ci kër yi ren di mi ngi noonu sëriñ baa ngi noonu ci ginnaawam di ko teg loxo euh, mi ngi noonu di euh, lewetal xar mi euh, mu doon gàtt boo xamante ni moom la imaam di rendi li feeg rendiwul ba noppi ne kenn du sañ a rendi ci mboolem ñi nga xam ne ñoo doon jullee ci barab bii mu ngi noonu sëriñ lu mbakki moom Cheikh Abdoul Khadr sëriñ bi nekk ci ginnaawam ak sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mi ngi noonu yeneen koy gis ci image yi lii lépp nag di tegtale dundal gu ñu war a dundal sunna Seyduna Ibrahim waaye dundal gu ñu war a dundal itam sunna Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam te loolu lépp dégg ngeen ko ci discours sëriñ bi waaye dégg ngeen ko ci xutba imaam bi. Euh, euh, bu ko defee nag mbooloo mi doog a tasaaroo doog a dem lii lépp nag ngeen ànd ak seen télévision. ligne bu bees bii nga xamante ni aw juddin wu bees la am ñu koy wax MKTV Muxaddamatul Xidma TV euh, àndoon ci nag ak mbokki euh, taalibe yi nga xamante ni ñooy gérer télévision bi site bi euh, maa ngi fii ci caméra sama man jëwriñ Serigne Cheikh Diop waaye itam Serigne Abdoul Khadir Bousso mi nga xamante ni mooy piloté télévision bi moom itam moo nekk ci technique bi ak Serigne Xaban Mbacké Serigne Abdoul Moutalib Bousso Serigne Abdoulaye Had Diop moom itam ci photo yi euh, Serigne Bàcci moom itam mi ngi ci euh, euh, caméra bi waaye Serigne Fallou Sey duñ ko fàtte uh-huh. Serigne Mbacke Serigne Mbacke ñoom ñoom ñëpp ñu ngi ci technique bi macha allah. di def def liggéey boo am solo boo xam ne tey mboolem fu waay mën a nekk ci àdduna bi MK TV julli gi nga xamante moo am ci jumaay Touba yaa ngi koy suivre ñi ngi suivre ñi ngi ñi ngi sant bu baax nag di gërëm mboolem site yi nga xamante ni ñoom ñoo doon jël lien bi ak télévision yi doon jël lien bi doon ko jàllalee transmettre en direct ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñu jaamu yàlla di leen wax wa kullu amin wa antum bu xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.